kàddu yi may yëkkati foofu rek mooy di mooy di mooy di remercier di remercier euh, population artisanale Louga parce que ba léegi la confiance est là nit ñi mën nañu bañ a bokk gis-gis ci politique mais si l'artisanat parle d'elle-même xam nañ li nga xam ne moom laa liggéey dans ce secteur waaw xam nañ ne liggéey naa fi liggéey boo xam ne si bu mucc ayib donc loolu rek ça prouve nettement que artisanat jotiwut ak affaire politique dara waaw jotiwut ak affaire politique dara mais sant yàlla rek waaw. nga nit ki dafa xër rek mais boo waxee ne da ngay voté nga ñëw ci benn ci ci ci urne bi bëgg a buuree enveloppe bi kooku ça ne dafa xër rek xër rek moo ko jàpp mais du du tappale moo ko teg parce que xam nañ ne la victoire est acquise dès le départ. dès le départ parce que nous sommes les bari rek Malik nous avons donc nous liste pour gagné gagner la ci de guma élection mhm. kooku wax rendre compte de ce qui se passe dans ce secteur am mais nous avons la victoire est déjà acquise perspective yi encore changé doxalinu secteur bi am foo xam ne si bëgg nañ ko faa yóbbu. boo gisee ñu jël ay jeunes xam nga ay mag lañu léegi ay mag lañu cee am na ci loo xam ne si jeunes yi ñoo ko mën a dox mais nag sous la coupelle des vieillards yooyu ñuy wax ci mag ñi ndax am na ci loo xam ne ñu ngi koy sàkku ñu ngi ciy dox ci état bi am nay projet yoo xam ne si aussi mooy perspective yi ngay wax am na projet yoo xam ne si naam ñu ngi koy nal. mais incha allah bu sottee danañ xam ne danañ rayonné waat le secteur de l'artisanat ba ndaw yi nga xam ne ñoom lañ koy denk boo lëggee nit ñi jëlaat comme ni ñu nekkee woon ñu continuer kook chambre bi waaw manquement bi moom moom moom kenn ku ne gis na ko côté côté côté budgétaire la ndax xam nga budget bi mënoo jël benn yoon artisan bi nga former ko ci donc loolu bokk na ci manquement yi ci à l'heure où je vous parle loolu ñi ngi ciy dox pour loolu mën a saafaraw manquement yoy dal mom mom amna ci mais l'encadrement est là ñi ngi encadrer artisans ñi ngi leen di suivre kenn ko xam ne am partenaire bo xam ne nañu jàppale en matière de formation ñi ngi lay former au moins pour nga mëna dem au delà de de tes activités. wa wa message bi ma leen di lancer rek moy que nañu gëna redoubler d' kenn ku ci nek bo amé xalaat bo xam si boko indé ñu tabaxat secteur bi man ci la portée grandement ouverte que muy adversaire que muy ñu ànd man loolu rek moo ñu fi secteur on a prouvé beaucoup de choses wane nañ fi lu donc loolu ñu wane keneen ku am xalaat bu ko ëndé ñu boole koog loolu pour construire le secteur. waaw man maay Khaly mbeng War euh l'ancien président euh, qui est réélu qui est réélu presque à 99 vingt pour cent ñoom ñi leen doon tong di leen jàppale xam nañ ne tour nañ seen xaalis ci mbedd mi. waaw tuur nañ seen xaalis ci mber mi. nga xam rek moo tax ngay wax mais li nga xam ne moom la ma état santoon def naa ko defar defar ay liste envoyé ko yóbbu ko loolu laa ci am am na ci artisan yoo xam ne ñu ngi ci biir di coow ca ñoo ñëpp am nañ li ma ci xam kenn xamul li mu toll waaw ay nit rek ñoo ñëw ne ma pourtant diw de jot na diw de jot na fekk naa ko muy fayeeku fële. nangam rek mooy atte doomu aadama Njaay xam nga nit ki mën naa yor bëgg bëgg am di wax. mais suñ borom rek mooy mooy àtte ci doomu aadama